pékin, le jeu a porté le maillot national au plus haut sommet. Il est notre invité. Nous allons donc retracer euh, le parcours de l'homme, mais également de l'enfant terrible de Balakos qu'il a été. Il est raconté ici par sa mère, mais également par Elage Alim Badadane Golbert, des personnes qui l'ont vu naître, grandir et devenir ce aujourd'hui. Reportage Mamoudou Ndiaye et Boudjouf. de Balakos. Bienvenue dans le quartier où El Hadji Ousseynou Diouf a passé son enfance. Dans se ruelles où il a très tôt attrapé le virus du ballon rond. ku nekk xamoon na ni mën naa am doom bu mel nii ndax dama nekkoon athlète ba pare bëgg sport ñëpp xam ma man rek maa daan ba ci ñi jëkk di dem stade di seetaani football ci laa bokkoon dama daan boot El Hadji di seetaani football. À l'instar de tous les jeunes, El Hadji Ousseynou Diouf a fait ses débuts dans les navétanes. impressionnant était équipe bii ma la wax nag moo doon équipe am kaani gi kaani gu saf sàpp la woon cukkali bi nga dégg moom la woon dafa am don de moom ba mu nekkee xaleel la ba mu nekkee xaleel bu tuuti la ko yàlla jox talent bi bi ñu ko xoolee xamoon nañ ne xale bii bu ko yàlla dafalee cat liggéeyu ndey dal ka bi yëpp daañu ko xam te alhamdulilah rabbil alamin Débrouillard, oui, mais Elhaj Ousseynou Diouf a toujours fait montre de caractère et de responsabilité. Elhaj moom caractère benn la moom la juddoo moom la màggee moom la yaroo benn la yàlla moo ko def ci moom bi muy nàmp la ko commencé bu xasee mer-mer na bu boo ko téyee sax li ma lay wax nii booba mënul raam sax soo ko téyee te mer na rek day fudd day mer day fépp xóot. Alaaji Diouf yaayam ji Fatou Diouf yaru ko de. maamam moo ko yar maamam kilifa diine bu mag dem ci yoon sëñ Tuubaa ba jeex tàkk moo yar alaj moo ko yàq sax xam nga maam ak doom rek bëgg ko def ko përum bëtam. Surnommé le bad boy par la presse El Hadji Ousseynou Diouf n'en est pas moins un homme attaché à sa famille à sa ville Saint-Louis. moom amul benn relation ak waa Ndar amul ci benn xaar ma yàlla à chaque fois su ñëwee day mel na mu ngi fi woon puisque il est aimé par tous les Saint-Louisiens li mu li mu defal li mu def ci Sénégal Ndar la ko defal ndax kenn du ni El Hadj la nekk Dakar la bokk dañ naan Ndar la bokk donc moom siggil na Sénégal waaye siggil na waa Ndar. mos na ñëw fii rek. Euh, yàggul loola ah. mos nañu rek ni ma papa man kanam mun ma école de sort mooy école groupe scolaire de sort fara ca boppu kii ba fara jànge mun ma dama bëgg dama fay yóbbu ay don yow laay àndal yaay sama papa maa dafa ak mom accompagné ko. un talent immense un palmarès riche des exploits mémorables pour autant certains observateurs reprochent à Diouf de ne pas partager toute cette expérience avec les nouvelles générations afin que le Sénégal puisse remporter un trophée continental. le c'est l'effort physique c'est les prouesses individuelles techniquement parlant c'est la vision de servir collectivement le groupe c'est l'objectif de gagner à temps à court moyen ou long terme El Hadji va-t-il rejoindre l'équipe d'Aliou Cissé pour permettre au Sénégal de faire mieux qu'en sa maman en est convaincue sama doom da nga bëgg rek mu jàpp ci dana ci jàpp te daani yaayu El Hadji waxoon na ko dina ci jàpp Mm-hmm.